ni haaw chers amis téléspectateurs de Leral bienvenue ci seen émission Budoka tey Budoka ñu nar a dalal un maître du taekwondo du nom de maître Bamba Mbaye maître Bamba Mbaye nekkoon fi entraîneur équipe nationale bu Sénégal bu bu Pomse taekwondo mais également nekk un instructeur bu nit ñi ràññee ci wàllum taekwondo tey moom lañ dara dalal nara waxtaan ak moom maître nuyu naa la. waaw salaamaaleykum grand maître maa ngi lay fay di la dalal jàmm ci Modou Kwan parce que club bi noonu la tudd mooy l'école des vertus martiales donc di fi dalal waa Budo waa Leral TV di leen remercier aussi ci invitation bi. tey ñu nar waxtaan ak yow ci lu soxal wàllum taekwondo Sénégal nga nekk ci euh, koo xamante ni ràññee nañ la ci taekwondo bi ay at nga nekk aussi également un instructeur un formateur. waaye ngeen am kuréel bu tudd UMTS Union des maîtres du taekwondo du Sénégal foofu laay njëkkee sama sama sama laaj mooy lan moo waral kuréel gu ni mel. waaw question bu ma neex la parce que dina ma permettre ma leeral affaire yu bëri donc UMTS mooy Union des maîtres de taekwondo du Sénégal boo xoolee ñu ngi ko créé juste euh, fin 2020 yooyu donc actuellement am na trois ans. bon li ko waral mooy ay maîtres ñoo fa nekk ci suñu statut yeeg suñu règlement intérieur il faut minimum avoir troisième dan ba pare nekk responsable de club. donc euh, li taxoon ñu dajale maîtres yëpp au sein de l'union des maîtres de taekwondo mooy après fin 2018 jàpp 2019 dañu am fédération u bees fédération bi am direction technique nationale mais ñun ñu jàpp ne suñu gis-gis direction technique nationale boobu ni mu waroon a composé woo demewul noonu c'est-à-dire que Euh, euh, référence yi nekkatul woon niveau de connaissance wala niveau de compétence loolu doon tax ba metre yu bëri dañ doon retiré wu bu fekkee compétiratuñu wala passetuñu grade xam nga ci art martial bi ñuy def yow boo xasee ba takk quatrième dan wala yooyu say passage de grade day échelonné sur 5 ans sur 6 ans donc boo amatul challenge bu bees rek souvent nit ñi dañu toog duñu ñu defati pratique donc loolu moo taxoon union des maîtres jub jóg parce que dama mës ko question ma ne ko. dama passé sama cinquième dan ba pare léegi bu ma demee di passé sixième dan sama niveau technique ban programme moo am Sénégal pour mën ma yóbbu ci beneen niveau bu gën a kawe mu reetaan tontu wu ma donc ma xam ne lii ñun bu ñu si jógul ñun maîtres yi fi muy jógee mooy da ngay egsi ci benn niveau mais après da ngay wàcc parce que du amati lu lay yóbbu donc ñi regroupé wu au sein de l'union des maîtres de taekwondo yëpp c'est des techniciens yoo xam ne ils sont reconnus au niveau national donc ñoo dajaloo donc l'objectif c'était de développer le taekwondo sur toutes ses formes moo xam pumse moo xam démonstration moo xam casse moo xam technique compétition ak lépp moo indi UMTS donc ñu def lak tour du Sénégal maaye territoire bi yëpp pour que esprit boobu ma wax léegi mooy c'est-à-dire nit ki ça veut pas dire que compétiratul wala wutatul ay grade dafa war a toog bàyyi parce que les arts martiaux c'est pour toute la vie donc l'objectif c'était de promouvoir l'aspect martial du taekwondo parce que aspect olympique bi dafa nëbb lu bëri ci suñu discipline bi ba ñu bëri foog nañ ne taekwondo compétition rek la alors que dafa am lu bëri loo xam ne ci aspect martial bi lay gën a feeñ donc loolu mooy butu ultime UMTS li ci gën a bëri loolu la. donc yow bu ma déggee euh, li nga abordé dafa mel ni euh, tey pour ngeen mun a échelonner à partir de cinquième daan day am day am fu mu sooxee. kon day mel ni fédération bi dafa xaw a laaj. waaw bon comme damay wax ci aspect art martial bàyyi ma développé ci volet boobu ba pare doo ko dugg ci aspect wu fédération parce que fédération xam nga ñoom seen aspect ñoom volet sportif la ñuy gérer mais boo déggee bu baax li ma wax dama ne am nañu système boo xam ne nit ñi dinañu dem di passer ay grades. système UMTS wala système fédération. fédération am nañu système boo xam ne nit ñaa ngi passer grade. mais grade yi ñuy passé di dem boo leen nattee ci niveau compétence parce que xam nga ñun taekwondo spécificité bi ñu am mooy diplôme bi ngay am ki ne Singapour moom lay am ki nekk Malaisie moom lay am ki nekk Chine moom lay am donc niveau de compétence yi dafa war tolloo mais tey ci tey li ñu remarqué ñun UMTS ba tax ñu dajaloo mooy en certain niveau de grade liñ ñi soit dañuy bàyyi ñu licencier soit dootuñu entraîner parce que gisatuñu lu leen di lu leen di jàngal ça ils des connaissances mais ils n'ont pas ils le savoir mais ils n'ont pas donc ñun loolu ñu jógoon pour sooxe sooxe boobu ñu poser question ki nga xam ni moo ko war a régler amuñu fa réponse ñun ñu créer structure boo xamante ne mooy ñëw apporter une réponse à cela moo tax boo xoolee UMTS day def ay tournée ci Sénégal Maître Abdourahmane Ba mooy suñu directeur technique dañuy def tournée Sénégal yëpp di yëkkati niveau nit ñi seen niveau di di ko di ko fexe ba mu yegg ci niveau bi nga xamante ne moom la ko ki woon définir maintenant lii sooxee mooy bu doon dafa normal la direction technique nationale moo waroon jouer boobu mais comme li ma wax tantôt mooy ñun ci suñu gis-gis ñoom mun nañ am beneen gis-gis mais ñun ci suñu gis-gis mooy niveau bi ñi fa waroon a ne ñoo fa nekk loolu moo tax ñu am loolu te boo xoolee ci résultat sur le plan sportif di nga gis ne taekwondo fa mu newoon newatu fa. donc euh, taekwondo fi mu fi mu fi mu newatu fa mais également tey gis nañ ne yéen ak euh, seen EMTS yaa ngeen di nekk di promouvoir. Euh, la discipline mais également promouvoir li nga xam ne mooy UMTS e tey si seen jàngat est-ce que quatorze régions du Sénégal yëpp ak li fi nekk ci département ak yooyu est-ce que am ngeen fa une représentativité. waaw aujourd'hui on a fait on a fait presque toutes les régions du Sénégal maa defe naa dem def naa stage ba Kédougou Kédougou je crois c'est à presque 700 kilomètres de Dakar dem naa fa ñu ne ma directeur technique national mosu fi ñëw. man def naa fa stage dem naa boo ba Ourossogui avec le directeur technique euh, de l'UMTS maître Ba on a fait le tour du Sénégal foo xam ne li ñu fa demoon xool yi ñi nga xam ne ñoo fa ne di def taekwondo affilié ci fédération bi ñu waroon a xool ñoom lan la ñu nekkee mais bu ñu fa demee la réponse mooy mosuñu gis benn autorité fédérale en tout cas muy Kédougou au tout au fin fond du Sénégal ci côté bi wala muy Ourossogui dans le nord wala muy feneen ci ci diggu Sénégal bi donc loolu mooy wane li ma doon wax sànq c'est-à-dire que amul programme bu jël en charge les besoins de ces pratiquants là te ñooñu c'est des licenciés comme ñun donc loolu moo tax ñun euh, bu ñu jógee di ko def dañ jàpp ne ñun sax fédération dañu waroon jàppale mais en face on a eu une opposition boo xam ne comprendre duñu ko quoi parce que ñun li ñuy def en réalité fédération bi lay servir parce que dafa jël ay acteurs yoo xam ne dañ leen délaissé ñu waroon dem bàyyi ñu fexe ba tirewaat leen ñu ñëw à travers boo xam ne day permettre ñoom ñu mën a recycler nekk niveau par rapport au mondial mais Maintenant, loolu peut-être c'est un choix de la fédération que nous, nous ne comprenons pas. Donc, peut-être nous avons invité, nous poser des questions, nous allons répondre. Bon, faut fédération euh, dire dans l'émission Boudoka, Inch'Allah. Mais la famille, euh, la fédération xaw Khaou, Tikret, leen Tegal, ay Galgal, les baton dans les roues. Non, en réalité, munu ko <laughs> munu ko sax jëm na ko nag jëm na ko def mais en réalité munu ko parce que xam nga ñun au niveau de en tout cas maîtres yi ma gis ñu regroupé au niveau de l'UMTS ay postes intéressé wu leen ay position intéressé wu leen leen intéressé mooy la pratique du taekwondo donc ñooñu boo leen bëggee gàllankoor yaay sonn c'est vrai la fédération a déployé beaucoup de moyens pour neutraliser ñenn ñi man mii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que en fait on n'est pas en guerre en fait on n'est pas en da nga am euh, arts martiaux da nga ci am benn gis-gis keneen am ci beneen gis-gis donc gis-gis yi ñu am fédération rôle mooy mu fédéré ñëpp ñu ñëw toog bu ko defee gis-gis yu wute yi ñu waxtaanee ko doog a mën a génn ay xalaat ñun boo gisee suñu logo UMTS da ngay gis sept personnes yu de couleurs différente yu toog autour d'une table mën a am ay gis-gis yu wuute mais mën a discuter pour génne benn solution pour pour benn pour pour problème yi nga xamante ne moom la taekwondo di jànkonte donc mais jéem nañ ko mais je ne crois pas mën nañ ko parce que taekwondo ni mu structuré léegi au niveau mondial ak ni mu structuré fii Sénégal loolu soo ko defee da ngay sonn rek mais en fait résultat yi du am résultat yi du mun a am. mais yaa ngi ne euh, jëm nañ ko pour essayer de vous neutraliser nan lañ doon jëm fexe pour neutraliser leen. bëgguma ci sax dellu si parce que jamono yi ñu toll nii je crois que ñëpp ñëpp constaté nañu rek dellu ginnaaw bi taekwondo Sénégal dellu ginnaaw man bi may ñëw direction technique national en 2016 defe naa. Sénégal toogoon na 4 ans mosul gagné titre en Afrique gagnewul titre en africain au niveau africain je crois Binta Diédhiou moom mujjee woon gagné benn titre africain en Tunis je crois 2000 2014 xaw ma 2015. après ci lañ ma jox man équipe nationale Sénégal bi mu ñëwee dama leen ne ñun suñu objectif c' est de gagner des reconquérir le titre africain gars yi nga gis fii ñoom ñoo gagné 4 titres africains en 2018. quand je suis revenu pour wax ci affaire équipe nationale def ay rapport wax failles yi fi mu nekk ak li ñu war a corriger au lieu ñu jël ko appliquer ko ils ont jugé nécessaire de dégager ñu ñun ñëpp indiwaat équipe bu bees mais équipe bi bi ñu koy indi ñun wax nañ leen ne lii mënul dem parce que base yi ñu ko tegoon dafa amoon ñoo xamante ne dañu ñëw pour euh, def seen reconversion utiliser la fédération à d'autres fins daal di dem loolu moo xew tey am na ñu jox fédération bi ñu jël ko pendant quatre ans wut ay poste Union africaine dem seen yoon taekwondo au niveau Sénégal tey Dakar par exemple ren y a pas Dakar amul activité ren. tout le temps yéen a ngi nekk dans votre émission Budoka sur Leral TV avec notre invité bi nga xamante ni mooy euh, maître Bamba mbay ñuy waxtaan li nga xamante ni moom mooy jëm ci wàllum taekwondo bu Sénégal maître ginnaaw bu ñu abordé li nga xamante ni moo jëm euh, ci un ci histoire mu taekwondo bi ak UMTS euh, tey lan mooy gis-gisu. maître Bamba ci wàllum taekwondo tey fi mu toll. waaw xam nga bon euh, dañuy dañu def ñun benn constat ñun boo xoolee mosuñu nekk ci ay action yoo xamante ne c'était ça va dans le sens de laaj fédération bi wala laaj ay position parce que nekkoon nañ fa dans la direction technique donc li doon yomb mooy aligné wu ci li gars yi di def ñu ñu continuer ci loolu su ñu gisee dara on dit ok tout va bien. mais suñu honnêteté bu doka mayu ñu loolu suñu gisee loo xamante ne lii fi mu jëm baaxul sànq maa lay wax 2018 dama demoon rencontrer les anciens regroupés au sein du CVT moom la ñuy wax le cercle d'éthique et de taï et de veille sur leen tous les membres de l'équipe nationale du Sénégal ils sont en danger parce que boobu li ma gisoon muy ñëw benn projet rek moo amoon ci fédération bi mooy la reconversion de certains ñoo xamante ne pare nañ seen carrière bëgg a ci fédération bi ñoom pour def seen reconversion ñun gisoon nañu et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs beaucoup de gens bu ñu la woowee ñu ah maître waxoon nañ ko je dis ah dañ leen doon bañ rek ngeen mbëkk miir bi en fait parce que ki lay critiquer bañu la ki lay critiquer dafa bañ nga mbëkk ci benn affaire. la preuve ñun kenn gisaatuñu sax après ñu nekkaat fa di tirer sur la fédération dañu dem suñu UMTS kon na suñu liggéey parce qu'on considère que discipline bi bu yàqoo ñun la yàqul su baaxee ñun la baaxal donc. loolu ñu leen waxoon moo am léegi boo gisee athlètes yi nga daan dégg yëpp ñu naan la road to Rio road to fële ñoom ñëpp ils disparu par la suite parce que système bi ni muy doxe sa ça a tendance à pousser leen ñu décourager ñu bàyyi. donc ñun bi ñu gisee loolu on a fait le tour du Sénégal dem waxtaan ak pratiquants yi ñu jox ñu aussi seen kàddu wax ñu nañu vraiment bëggoon nañu li fi ne ñu di sooxee ñu jéem ko changer donc ñun on a fait un certain nombre de propositions na ci direction technique nationale képp ku fa war ne ça doit passer par appel à ñun parce que moi je suis candidat pour le poste de président de la fédération sénégalaise de taekwondo terewuma nelaw nag <laughs> parce que li tax terewuma nelaw mooy du loo xamante ne c'est une fin en soi mais c'est notre discipline la ñu gis mu nekk dans des conditions yoo xamante ne vraiment du lu ñu neex ñu toog di ko seetaan parce que UMTS mi ngi def ay stage au Sénégal et même au de la du Sénégal mais ñu bàyyi suñu kër mu yàqu ñu dem di defar feneen donc bi ñu gisee loolu ñu waxtaan ak pratiquants yi. donc bi ñu waree Sénégal yëpp gis yàqu-yàqu yi fa nekk ñu jéem a proposer programme bi ci programme bi li ci jiitu mooy loo xamante ne dañuy delloosiwaat tout doit tourner autour de la compétence parce que bu fekkee nit ki amul compétence nga bëgg ko dénk poste rek ça pose problème donc muy direction technique muy fonction bu mu ci mënti doon dañu war a def appel à candidature te poste yooyu liggéey bi dafa yomb parce que am nga un arrêté du ministère bu organiser déjà structure bi ki koy yor naka la war a mel ak nan fan la ñu war dem donc suñu defee appel candidature gis ñi ko soxla ñu waxtaan ak ñoom génne programme jox leen beneen bi ci topp mooy boo gisee carte Sénégal ni mu bindoo dañu am 14 régions fédération bi dafa ñëw rek jël 14 ligues créé leen sans mu jox leen moyen sans mu jox leen organisation bu tax ñu dem parce que encore une fois ñi nekk au sommet ils n'ont pas rampé xamuñu lan la taekwondo bis bi nekk Kaolack bi nekk Fatick bi nekk Touba soxla ñoom li ñu soxla mooy toog sa toog Dakar sous la clim ak seeni projection xamuñu lu xew ci terrain bi loolu moo tax 4 ans yi ñu sonn léegi nag ñun bi ñu gisee loolu ñu ne bon d' accord c' bien ñu am 14 régions mais on n' est pas obligé d' avoir 14 ligues mën nañu kon ne am 14 bu nekk am autonomie mais ñun dañoo dañoo gis bi ñu defee par exemple au sud booy dem Casamance par exemple boo jëlee dakaar nga jaare par Gambie dem Ziguinchor tu fais 400 et quelques kilomètres ñun def nañ ko boo ko jaaree par Tamba tu vas faire 600 et quelques kilomètres léegi imaginez un athlète bu war a jóge foofu ñëw compétir Dakar ko def champion Sénégal bugg ko yóbbu championnat d'Afrique day metti moo tax bu ñu waxtaanee ñoom ñu ne leen léegi boo regroupé Ziguinchor Kolda Sédhiou ak euh, Kédougou ak Tamba nga def ko benn la grande ligue du sud ba pare ligue bu ne garder autonomie fédération ñëw en appui financier rek matériel ak formation mu nekk benn pôle bu bu mag bu nekk au sud nga ñëw au niveau du centre da ngay am Fatick Kaolack ak Kaffrine parce que yooyu c' est des ligues yoo xam ne fédération da leen créé mais joxu leen benn moyen ñoom ñooy débrouiller seen bopp. maanaam maanaam su ma la déggee euh, dañu leen créer bàyyi leen ak seen bopp. voilà parce que da nga ñëw rek am naa 14 régions découpage administratif bi c' est 14 régions donc il me faut 14 ligues boo demee au nord da dem Wuro Sogi par exemple on te dit y' a 5 pourtant y' la ligue de Saint-Louis ligue maatam dafa am ak euh, fële ci ginnaaw Podor. donc yooyu boo leen boolee nga boolee Louga Saint-Louis ak Matam mu nekk une grande ligue du nord. nga am un directeur technique buy coiffer loolu yëpp ñoom ñëpp garder seen autonomie financière rek seen organisation mais activité man bu may def en tant que fédération au zone nord damay coordonner ak ñetti ligue yëpp organiser ko fen bu ko defee su ñu amee seen équipe régionale su ma waree organiser un championnat du Sénégal ñooñu dinaa leen mën a transporter soit au centre wala à Dakar wala feneen mais système bi ni muy doxee nii. 80 pour cent des athlètes vont venir de Dakar ou bien 90 pour cent donc Dakar dañuy privilégier Dakar bon gars yi doon nañ théoriser naan taekwondo yamul Dakar yamul Dakar mais du wax quoi dañ koy jëf donc ñun ci suñu programme bu ñuy proposé dañu ne suñu defee découpage boobu pareeguma parce que Dakar Thiès ak Diourbel c' est de très grandes ligues ñooñu jarul nga leen di couplé kenn da nga leen di bàyyi seen bopp mu nekk 3 donc nga couplé nord couplé centre couplé sud sud mu nekk 3 muy 6 léegi 6 yooyu boo ko jëlee. chaque année dañoo am ay formation xam nga sànq yaa ngi wax instructeur aujourd'hui Sénégal ñaari instructeur moo fi am sénégalais ñaar ñëpp UMTS sañu bokk fédération formé wul benn instructeur ñun ñoo jël suñu propre moyen former des instructeurs mon collègue mi ngi passé il y a même mois il est en Corée ak man moi j'étais le premier moom il est formation boobu lu muy jëriñ parce que moo ñuy permettre ñu nekk avec les références au niveau mondial parce que taekwondo dafa évoluer rapidement donc su ñu defee loolu former des techniciens yu nekk ci six pôles yooyu jox leen objectif parce que damay joxe benn exemple soo jëlee maître Mohamed Camara xam nga ko démonstration il a été formé en Corée bu mu dellusee ku ne gis na Sénégal démonstration fu mu dem man du ma tàgg sama bopp j'ai hérité d'une d'une euh, d'une équipe boo d'une équipe boo xam ne maître Latif moo ko moo ko moo ko teg ma ñëw dem Corée formation dellu suñu jox ma équipe Poumse actuellement Sénégal ku muy dajal Poumse en Afrique doo nelaw parce que on est les Parce que il y a eu des gens qui ont été soit formés par la fédération muy démonstration soit ñun suñu propre moyen ñu dem defi formation ñëwaat versé ko ci taekwondo Sénégal donc man fédération musuma fayal formation. donc yow sa formation euh, yi nga mus a dem kukki woon un peu partout yow yaa fayal ak sa propre xaalis. man dem naa Kyong University 2011 physical education department fa la defee sama formation coaching combat ak Poumse ma dellu fa 2013. toujours avec mes propres moyens dem defi formation instructeur Kukiwan toujours avec mes propres moyens donc loolu moom fédération dugalu ci un centime te bi ma dellu see dama ko ñëw def ay rapport dugal ko ci fédération bi loolu la UMTS di doxee ba léegi ak yeneen structures yi moo tax ma ne six pôles yooyu bu ñu ko defee parce que coréen bi ñu fi ñëwee dañoo tabax benn pôle régional à Dakar fii centre de perfectionnement ñu ngi ko tëj xaw ma lu tax à Tamba tabaxal ñu fa benn former ay nit bàyyi leen fi pour harmoniser technique yi mais après comme li ma waxoon ci njëlbeen ba bi may wax on a une direction technique boo xam ne le niveau vraiment franchement ki fa ne sama grand la on a été on a ensemble mais on est budoka quoi il n'a pas le niveau pour yóbbu ñu fi ñu bëgg dem ça je l'ai dit partout man bi ñu falee dama dem ba comité directeur ma li ngeen bëgg def baaxul du dem aujourd'hui tout le monde est d'accord avec moi sur li may on est aux arts martiaux on doit être honnête avec nous su dee niveau bi mun na dem leadership bi mi ngi fii xam-xam bi mi ngi fii lépp mi ngi fi ñun ñëpp dañu lay jàppale nga dem mais su munul dem il faut dire que munul dem ñu arrêté c'est ce que nous avons fait donc ñun jàpp nañ ni formation bi mooy li ëpp ëpp solo bu ñu former ay nit challenger leen jox leen les moyens mun nañu développer parce que ñun amuñu ambition wala lu ñu tee nelaw dem wuti poste Union africaine wala fédération mondiale soxlawuñ ko parce que nos yi yóbbu taekwondo fi mu yegg les grands maîtres bi ñuy gagné fii ay championnat d'Afrique ay Jeux africains yooyu amuñu benn membre au niveau de l'Union africaine ni au niveau de la fédération mondiale mais tey on a tout Sénégal mooy gérer la direction technique de l'Afrique mooy gérer le secrétariat de l'Union africaine mais on ne gagne plus combat fu ñu dem ñu dóor ñu c'est pas parce que les entraîneurs ne travaillent pas mais c'est parce que programme bi ñu leen jox je donne un exemple parce que na ngay sànni nii rek quoi non non non man nekk naa direction technique du ma tontu donc man maay définir sama bopp samay objectif en tant que entraîneur loolu normalul donc et jàpp naa ni loolu moo fa ne ba tey donc donc loolu su amee ñu définir la objectif jox la ay moyens wala ñu jox la des objectifs yoo xam ne dafa nekk en cohérence avec tes moyens mun nga dem donc moo tax daal ñun man du ma trop trop trop appesantiru ci bilan wu fédération dinañu dem age incha allah les taekwondoistes vont tirer les les les leçons ci loolu de toute façon ñu on avait averti donc programme bi mu la wax nii ci loolu la ñu nekk parce que boo delloosiwul taekwondo sur les fondamentaux munoo ko développer te actuellement nekkuñu ci fondamentaux actuellement dañu nekk ci événementiel dañuy dem jëli grand prix dañuy dem jëli open bu ko defee stade bi 50 personnes sax duñ fa nekk ñu def ko mu jeex on dépense beaucoup d'argent et on a gagne pas et après jeunes yi ñu ngi évoluer amul technicien yu am niveau pour jël loolu en charge du coup club dootuñu amati sax volonté wu formé parce que ki ngay formé bu dem équipe nationale souvent déglu nga audio yi génn temps yi donc euh, yooyu yëpp pour éviter ko mooy ñu delloowaat taekwondo ci loxo ñi nga xamante ne foofu nag damay interpeller responsable club yi parce que en fait ñoom lépp ñoom la parce que ñoom ñooy dénkaane au lieu ñun ñuy jël suñu discipline di ko dénk ay nit ñu ciy def loo xam ne neexuñu ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci terrain bi nekk ci taekwondo bi ñun ñoo war a ñëw jëlaat suñu discipline teel ko suñu bopp nga xam ne ñun même bu ñu nekkulee ci instance fédérale yi ñun ñu ngi ci taekwondo bi mais am na ñoo xam ne fi ñu ne seeni poste rek moo leen fa téye bu ñu bàyyee poste yi rek pare nañ ci taekwondo tey fédération bi ñu ko yore toog nañ fi 13 ans nekk secrétaire général nekk président vice président nekk président kooku lan la mën a apporter ti 13 ans après donc li taekwondo en tout cas li ma dégg bi ma waree Sénégal mooy il aspire un changement changement bi mooy pas ñu teggi ñi wala jógal ma toog déedéet mais le le le de réunir la famille du taekwondo yëpp ñu waxtaan ñu génn ñi nga xam ne ñoo gën compétent ñu jiital leen ñeneen ñi ñoo jàppale leen mais surtout ñu baña a delluwaat ginnaaw parce que 2009 ba léegi on a les mêmes personnes ñoo xam ne ñoo ñu ñoo ñuy jiite te lu ñu bëgg a def ci taekwondo ñu ko def parce que xamuñu discipline bi ñu gérer xamuñu lan moo ko tax a jóg réellement quoi. alors li ñu nar a aborder mooy euh, euh, les cinquantenaires du Kooki woon nga demoon euh, demoon fa. am fa certification ban jàngat nga am par rapport ak loolu fa xewoon ci Kuki One te nga participer ci. waaw en fait en réalité bi may dem sax du woon Kuki One moo ma yóbbu woon directement parce que dafa amoon euh, un séminaire de formation boo xam ne fédération mondiale moo ko doon moo ko doon sponsorisé ma demoon ci mu tombé waale bi tombeek cinquantenaire u Kuki One maintenant li gënoon tax ma dem mooy ñun dañu am problème Sénégal depuis 2009 wala 2010 dañuy pa grade. te duñ jot suñu diplôme man mi di wax ak yow maay cinquième dan Sénégal quatrième dan jot naa sama diplôme quatrième dan kooku woon passé naa ceinture noire cinquième daan depuis depuis quatre ans ren laay dugg sama cinquième année jotaguma sama diplôme. barki démb bi ma xamee ne naa def émission ak yow j'ai appelé le secrétaire général de la fédération pour m'enquérir parce que bugguma di wax ci lu ma matrisé wu mu ne ma mënul ma tontu. j'ai appelé le DTN décroché wul ma woo président bi décroché wul donc comme bi coow li bëree Sénégal dañu waxoon nañu dafa am benn année coupe ambassadeur am am ñu ko boycotté ñu ne boycott moo tax coréen dañoo mere léegi benn diplôme dootul ñëw ma ne bon comme Corée sori na soriwul c'est vrai que Corée c'est à 14 <laughs> euh, heures de vol de Sénégal mais quand même pour dëgg feeñ nañ fa dem donc man ci loolu laa demee Séoul bu ma demee def stage ba pare ma dem Kukiwon laajte. ñu ne ma fii Sénégal ñun dañuy xaar diplôme Sénégal ñëw pour ñu traité ko donc li ñu doon wax fii loolu amul te wan naa la diplôme bu wane ne ñun ñu ngi wax ak ku ki wan ñu ngi jot suñu diplôme voilà donc diplôme yi ñun ñu ngi koy jot mais aussi bon su ma waxee loolu man fédération laay waxee parce que grand maître bi yor division des grades ñun on a beaucoup de respect pour lui du ñu réeroog moom man bu ma indee ay diplôme dama ko dem jox ne ko soo bëggee ma jox gaay wala ma jox la mu autorisé ma ma jox ko parce que loolu c' est le volet martial on a beaucoup de respect pour lui mais fédéraux yi nga xam ne ñoom c' est des administratifs ñun dañuy jël suñu xaalis dem ci banque bi versé ñëw def suñu examen pare war a jot suñu diplôme. et en même temps en parallèle la fédération ñëw fekk ñoo xam ne deuxième dan lañu am kuki wat mu yóbbu leen Côte d'Ivoire defal leen skip dan tëbal leen deuxième dan jox leen sixième dan mondial jox leen diplôme. pendant ce temps le sénégalais bi toog fii fay xaalisam dem passé grade am le niveau. mënul jot diplôme man fey naa 150 000 ci fédération maak samay moroom ñu bëri mais mënuñ jot suñu diplôme par respect au grand maître et au principe des arts martiaux moo tax ñun mënuñu ko court-circuiter dem jëli diplôme yi indi ko moo tax parce que toujours li may wax rek suñu discipline dafa am deux volets l'aspect sportif et l'aspect martial donc mënoo ne da nga ko respecté ba pare après ngay def lenn à son moo tax fédération war nañ ko sant bu baax et puis ñu ko mu yàgg fi lool maître Ibrahima Diédhiou parce que def na fi liggéey bu am solo ci ci dalal taekwondo bi mais nag loo gis dafa am fu mu yem aussi ñun xam nañ ne fédération jot na xaalis bi illa l'a ci yeneen i activités yu bokkul ak li ko taxoon a jóg mu nekk un détournement d'objectif en tout cas ñun indi nañ leen video bu wane ne ku ki woon bu diplôme yi ñëwee mu traité donc euh, loolu moom leer na maintenant li des nag mooy fédéraux yi def AG wax ñu xaalis bi ñu doon versé ñun tous ces années là fan lañ ko dugal. ak lan lañ ko utiliser parce que ki ko doon fay da ko doon fay pour gradam ñëw mais léegi mi ngi passé ñu koy jox diplôme national mais mënuñu ko dox diplôme ku ki wan li ñu waxoon ne coréen dañ ñu mere moom dàqun parce que man diplôme bi ma la wan nii sama kër laa toog bougé wu ma dara xewee mu am une cinquantenaire bu ñuy joxe dañu ci boole loolu aussi mu nekk une pour tout le Sénégal et je suis pas le seul wax membre de l'UMTS maître Abdou Baxé qui aussi arbitre international basé en Corée moom tam passé na diplôme instructeur donc loolu loolu la affaire bi demee en réalité quoi. alors yegg si nañ euh, ci ci fin émission bi lan moo nar nekk sa mot de la fin li nga xamante ni euh, amoon nga njort pour euh, joxe message bi mais mu rëcc la moom nga bëgg a joxe comme mot de la fin. mot de la fin bi su ma sañoon sa émission bi yëpp dama koy focaliser ci sama programme parce que li ma la wax sànq am na war nañ ko adossé ak un moyen de financement de la fédération parce que boo waxee fédéraux dañ naan la amuñu moyen mais moyen xam nga dañ koy wut wax naa la ñun suñu formation yëpp fédération financé wu ko donc xam-xam bu ko def mi ngi fi taekwondo yi su ko def ñu ngi fi mais ñi jiite le top management bi jiite dañu xamul li ñu téye lan la loolu rek moo ñu sonal léegi nag soo leen koy wax dañuy foog ne leen di critiquer non ñun on veut juste boo xam ne mooy permettre in fine taekwondo dem ci kanam parce que mu ngi fa woon on a été deux fois Jeux olympiques on a été plusieurs fois médaille africain wala yooyu donc li ma li ma bëgg wax yëpp xëy na du xac ci émission bi mais en tout cas on a un programme très bien structuré boo xamante ne partagé nañ ko ak taekwondo yi si ñu wër yëpp jox naa la ci tuuti ci euh, reconfiguration bi ñu bëgg def au niveau des ligues am nañu aussi un plan pour financer cela surtout pour mën a jàppale les les les les de l' équipe nationale parce que ñoom ñooy le le le le miroir du taekwondo sénégalais. ci ñoom la ñuy gisee ndax taekwondo mi ngi dox wala doxul donc ñooñu il faut ñu yëkkati leen mais euh, am naa trop lu metti bi ma déggee yenn athlètes yi ku kër yi ñu def ak yooyu yëpp ndax euh, difficulté yu ñu dund et tout ça donc dernier message bi mooy wax ak taekwondo yi sénégalais yi ñuy seetaan que ne la balle est dans leur camp li ñu dund ces dernières quatre ans là ñoom suñu bëggee mu jeex benn question rek lañ leen di laaj ci prochain assemblée générale bi est-ce que da ngeen ci li ñu doon dund nii ñu continuer ci loolu parce que mun na nekk ou bien ndax dañu bëgg ñu changer ñu dem vers un taekwondo de développement loolu mun na nekk donc ñu loolu rek la ñuy laaj prochain AG bi li ñuy def yëpp ci loolu la aju est-ce que on maintient le même rythme qu'on a eu depuis quatre ans avec des résultats qu'on connaît ou bien on aspire un changement loolu rek mooy question bi ñu leen di laaj à travers seen seen vote et je sais que ñoom def nañu def nañu diagnostic ba gis li ñu gis ñoom loolu la ñu gis parce que c'est eux qui sont venus vers nous moi j'étais pas demandeur c'est l'UMTS qui loolu rek laa amoon lu may wax di leen wax aussi que ñu rester vraiment concentre et rester vigilant avec euh, li nga xamante ne mooy ñëw nii ci kanam question yi ñuy pose fédération mënuñu ko tontu lu dul ci assemblée générale donc ñu ngi leen di ñaan ñoom parce que seen mandat jeex na depuis décembre 2022 ba fi may waxee ak yow ñu organiser age activités yi bloqué na ci ligue yu bari donc euh, fédéraux yi vraiment li ñu leen di ñaan mooy ñu ñu ñu revenir à la raison et puis organiser cette assemblée générale pour que gars yi mën a dem ci renouvellement instance yi quoi. le renouvellement le renouvellement des instances de la fédération. dégg ngeen comme le maître euh, Bamba Mbaye ni mu ko notifié que euh, l'instance de la fédération seen mandat de quatre ans expiré na depuis deux ans. fi mu nekk nii bëgg na un taekwondo de développement il a même posé sa candidature à la présidence de la fédération du Sénégal de taekwondo xaw na dérouler un peu un programme boo xam ne s'il est élu président moom la bëgg a def ci biir taekwondo Sénégal loolu moo nekkoon seen émission Budoka sur Leral TV ñu doon ci dalal ki nga xamante ni moom mooy maître Bamba Mbaye Et sur ce, je vous dis